ci Sénégal maa ngi fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal président de la république jàmm kilifa diine yi ñu yàgg fi loolu te wér jeunesse bi ñu yàgg fi loolu te wér ñi nga xamante kilifa diine kilifa aada maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii nga xamante ne nag fii la yonent bi tëdd maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal Sénégalais yëpp képp képp kuy mbër maa ngi lay ñaan képp kuy mbër maa ngi ñaan Baye Mandione maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal ñëpp di la wax Baye Mandione yàlla nga am li nga bëgg si sa at xam loo bëgg yàlla suñu doon dafa ci barke si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ndiol jërëjëf jërëjëf. ci Sénégal maa ngi fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal président de la république jàmm kilifa diine ñu yàgg fi loolu te wér jeunesse bi ñu yàgg fi loolu te wér. ñi nga xamante ne kilifa diine kilifa aada maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii nga xamante ne nag fii la yonent bi tëdd maa ngi ñaanal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal képp képp mbër maa ngi lay ñaan képp kuy mbër maa ngi lay maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal ñëpp di la wax Baye Mandione yàlla nga am li nga si sa àdduna yaa xam loolu bëgg yàlla suñu borom dafa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ndiol jërëjëf jërëjëf